الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بكم السلام عليكم ورحمة الله نيلة في ديجتي فابل جاي ولا فلو جاي لول لول يين يوني أم في بيت لول نخم غفا فاضل مبورو يلي هو لأسا دي لو أجوم غير من ري بو متعات بو من سيران ليلة ديام ديام فلو xam naa nag eh, li ma si a seetlu moom mooy eh, ngoone ak ngoone la soo xam ne dese te ñu ko wër itam waxuñu ko dëgg ndax bu ñu yeewu woon sax dañ ko wax ne ko reewandi gii ngay jaay ak ñàkk teggin bi dañuy yàqal ndax ku ko déglu tamum xel dafa yow ñi teew moytu leen ndax eh, ginnaaw gone yu réew yi nii ñoo ne ci ñoom Euh, waaye ñi ko wër yi euh, xëy na du ci borom xam-xam itam nag bu doon borom xam-xam duñ ko sax may muy wax ndax kii wër ta wax boo déggee ni ñuy liir bari yàq yi mu yàq rek ci wàllum maxaari jeeg wàllum naxu bi ku ne mooy xam ne kii sax moom la ko waroon wax mooy dama jàngiwaat ba ci kanam te bay yi nga ne wa shuhratu mën a wa shahratu euh, min ash-shamsi min ash-shamsi min au lieu mu ne min ash-shams defar siin yooyu mën a am na cham yor asbaab léeg-léeg sax mu dugal lu mel ni idgaam ci xam ne nit ku di jàng alxuraan li euh, muy firee yenn baat yi itam ak ni ñu ko bindee ak ak la borom texte bay wax léeg-léeg du doon benn te li texte bi wax leneen du na ci texte bi moo ko yooyu yëpp nag ñàkk ni ci biir ñu jàng muy mën a wéy Euh, koo xam liir bu normal mënoo ko boo liiree itam la ñuy wax doo ko comprendre booy tekki leneen ngay wax léeg-léeg nga ne ci biir bi boo ko ñëwee demal nga boole ci ñàkk teg ngir da ko mottali ko daal ñàkk teg di ko xam bokk na ci membre yi wane euh, euh, daa dese maanaam dañu xam di ko maanaam daa am lu mu a weddi mënu ko weddi mu bëgg koo mottali ak ñàkk waaye li li gën a xorom rek mooy ni ñu yàqee. baal yi noonu lay yàq tamit masal yi mu dugg maanaam day jaxasee demal li ma wax li xam ko maanaam raddu bii mu doon man jot naa cee takk euh, lu mat fanweeri sos fanweeri sos yi sos yi sax xam naa teg na dañ ko détaillé ci audio musibal euh, xam naa ne li ma njëkk a seetlu ci raddu bi mooy ñaari mbir bu njëkk bi mooy gaa yi tëri nit boo waxee woon da koy raddu teram liñ may raddu li moom lañ may raddoo yi ak laa waxoon bokkut ñaareel bi itam xam naa ni mënuñoo daane gànnaar daa mel gànnaar am na ndam ci seen kaw ndax la ñuy wax ak la gànnaar wax mu bokkut gaa yi tëylugu ci fiqat xam-xam sàngam sëñ bi ci yooyu lay wax te gànnaar moo waxuloon loolu moom li mu bind ci xasaay yi yooyu lay wax kon ñoom mel nañ mel na ni ba ba fii ma waxee yow mënuñu woon a dugal ndax la waxoon ba fii ne dindee buñ ko kenn ku ñoom ku tuddagul lu ko dindi it amagul kon daa mel gaa na am na ci euh, seen kaw ndaw bu dee man mi nga xam ne nag man euh, ñàkk tege gi gi gi ñu teg seen tuuba bi ñu raddu gànn moo ma ci dugal may itam buñ may radd dañuy génn tem bi maanaam li may wax ak li ñuy du doon benn dañ ciy boole itam ay sos yu dul jeex te yooyu dañ ko leeralaale ci biir ci biir rajo yi ñuy def nga xam ne maanaam Fallou Ndiaye mel ni pexe mu dul song borom xam yi yi nga xam ne ñoo fekk ibnu tey mais li borom xam yoo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ñu mu mën wax loolu kon kii bu dee Moustapha la waxoo dëgg wala yooyu lu ko naqari ndax borom xam bu mel ne ak sukki a taxaw ne day fen wala xeet yooyu wala bu ñàkk tey gii ne noonu loo xam ne ah sëriñ moom tey bi mu ko wax loolu defe naa ne eh, ku keneen ku wax loolu itam du la xari ndax ah, sukki moom muy konto dahab yi ci boppam nga xam ne dahab yi jot naa jàng ci Ibnu Taymiyya doonte nag mujj na di raddu Ibnu Taymiyya moom dahab ci boppam waaye mos naa ci loxo ci ci loxo Ibnu Taymiyya laxab yi sukki moomu nga xam ne faadal nee na dañuy fen waaye dama daxab yi nee na sukki ku ko gën a nekk xaafis ku ko gën wattu amul ci jamono ji maanaam jamono jooju nga xam ne ci lañ nekkoon ñun ku ci man ku ku ci gën nekk sukki xaafis amul ku ci dàq xutba amul ذهبي مولى الرواية البحر التقي ليثنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي شيوخ العصر شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي من فهم وجه لقاته كن لير لكن من برخة بلويثنى كن تسكي من ميمو إمتى من يوم كن جمانو muy taqiy diin sukki jamono jooju mboolem sëriñ jamono ji zahab yi doog a Ibnu Taymiya moo wax ne sukki ku ko ci ku ko ci gën a nekk kon yow yaa koy fonto waaye bu taxawee nag wax ci Ibnu Taymiya lam wax ngoone soo xam ne këru iji ci genn wet taxaw ci ko jëma wet di loolu daanaka eh, di sos te defee ne sos yi mën nga cee wëy da ngay sonal sa yu bari yi nga xam na ko ci eh, lim ne woon dama koy jéem a du ma ne la dama naan eh, leeral eh, sofi faadil laa ko tuddee bayaanu akaadiri faadil ndax lii moom daanaka waa ji lu ñuy raddu ko xam tam tam li laa mel gaa yi tëri nañ ndax li gaan na wax ñu wax moom bokkut bokkut yooyu xëy taalif ànd ak ne yooyu xëy taalif donc ci boppam sax lañ ci waxee ñoom du dëgg waaye moom daa ñaareel bi tamit mooy tëye nañ ndax liñ may raddoo ak man li wax du benn moo tax ñuy mottali koo làmmiñ moom tarixa moom bokk ak mbooloo mi ñuy jéem a défendre mun leen a défendre rek yooyu yëpp doon tem bi mooy nga xool li Moustapha Sy la wax ndax dëgg la dëgg euh, euh, ñaareel bi itam xamuñu lan lañ war a raddoo même la nga xam ne moom lañ ñuy wax sax ne mbooloo Moustapha mbooloo mi ñu tuddee mbooloo Moustapha ne lañ mel ku doon radd tarixa bi sax doo ko war a doonoon ndax am na différence almuridiyee ak loo xam ne ñenn ci ñi tuddoo seen bopp ay murid ñoo koy def shattaana bayna almuridiyati saxiixa shattaana bayna almuridiyati saxiixa wa bayna maa yafaalu baadu atbaa'iha duñ benn bu ñëwee lan mooy lislaam day leer lan mooy parce que am na jullit boo xam ne am na jullit boo xam ne ci Daesh la bokk am na jullit boo xam ne daa dem nëj soo borom xam yi leen takfiir am boo ay buur la àndaloon euh, ko gi moo ko njabootu ñu nekk ay ci ak ñàkk ak ñàkk xam euh, ay nit yoo gis ci lu ñuy def tarixa mbaa mazhab nga daan ne mbooloo ma nii la mel kon diggante am mbir ak lu ñenn ca ñu koy tuddoo di def ñaari mbir yooyu dañ du benn waaye gars yi euh, seenu suufe ak seenu ñàkk xam-xam saa yu ñu waxee rek mu feeñ mooy li ma ko dox démb rek daa mel saa yu waxee rek euh, génne ay awra ma ñëw nag ci yenn euh, yenn yenn sos yi nga xam ne waa jot na koo sos xaaral ma teggee leen ko tuuti waaye ñoom daa mel ni kaas mi la yor see xam naa bëri gu meew la te yor tey moom day tàng di tur rek sosu njëkk bi mooy tudde gi gi mu tudde seen bopp ahlu sunna loolu amul yéen fan ngeen bokk ci sunna fan koo xam ne yaxmilu lmutashabihaati ala nan nga mën a def ba bokk ci sunna kan moo la boole yéen boobu xanifata ñoom sonnee asalafu saalih sonn yéen a tax mooy mushabiha yi عقيدة بنا غير كلا رسولنا نك تطاحا بنات لكو نيكو لنتي موي سنة رسولنا وتعالى لنجوها أركان أكي أعضاء أكي أدواء أكي جهاد يويا جوما لي سنة رو كوي وقنا يالا يالا برسان قبل فيت لولا جو لولا لولا بوالي كان رسولنا كوي وقنا يالا أمنا أبلا خطي يالا يالا يالا خطي بنيت أفير دون لما نرون نرون لنا دون تتعيوه لنكسر المكوكير لولا ممراه وقال مين نبني مجد ميت loola boole ci ahlu sunna kon loolu euh, moo njëkk wéradi euh, waaye sos bi te mooy sosu ñaareel bi mooy mu wax ni Moustapha tariqa ba mbokk ñooña duñu boroomi xam-xam looloo sos bi ko gën a rëy tariqa murid li ci nekk ci borom xam te naka jekk na tariqa xam-xam la ma sa doon ndax seen sëriñ moom la ma sa woote wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatullah ñi nekk Maghrib moo tax naka jekk bi muy dund ak ñi ci ci jàng ci jàngale ci la masa ne ñi fi bàyyi itam mësuñoo leen ci loolu euh, ay waxam yu mag a mag tamit bu ma la tuddaloon suñu bàkk bu sa rek mu doy te mën nga cee lim ab limburu jeex kon ne du yoonu xam-xam loolu moom wax la joo xam ne Sénégal yi day dégg soo xam ne ñu waxoo dëgg te léegi si si si yées ci nit nag mooy wax wax joo xam ne boo ko waxee gone yi sax xam ne yow mii li nga wax dëgg nga xam ne sa doom bi xam ma nga naan bàyyi mii moo mën a xam nga loolu euh, mënut a def euh, weneen euh, soosu ñetteel bi mu ne Moustapha daa wax ne Ibnu Taymiya du marjaw ahlu sunna tey man laa wax leer na dama ne woon ak koo xam ne ahlu sunna waxuma la ñu di ko defum marja waaye dañoo wax ne ñeene ñeene ñeene yéefar la ñeene nitu biddaa la ñeene nangam siyaaq bi ñu nekkoon tamit leer na albert ba tudd téere ibnu taymi boobu àqiir mu ne marja la defe naa bayaaru talbis eh, moom laa jaawal ci biiroon ma di ko woowee talbisu iblis mais loolu sax boo xoolee sama jooju kii di muy wutoon noonu mel na ni bayaaru ma ne ko du marja ci ahlu sunna koo gis mu ciy dellu ci aqida ma xamal ne mubtadi la ku mën a doon na te loolu nag ata xaddaak nga indi koo xam ne day sukkandikoo ne ci yi jéem a euh, a saxal ci ahlu sunna kon ay wax boobu génne siyaas bi rek yaa tàmbali ko wax alfa moo ko def ci marja yi nga xam ne ci ay marja lañ yu mën a dellu im tey ne koo gis mu ci ahlu sunna ci ahlu mbir yi wax benn Euh, du doon mbirum àqiida mbaa bu dee du doon li nga xam ne moo ko wóotaleeg jullit ñoom lam dafa ko suñu doog la ci indi wala mu tudd ko ci mbiri fiq yi wala muy wax masala di di di wax ba tuddaale ba te loolu mubtadaa yi ci boppam dañuy boo seetloo mu fasiroone yeeg xam mag yi bu tuddee boo seetloo waxi mubtadaa yi dañ koy indi diw tudd na ko ak diw dellu na ko dellu na ci lu benn wax gi mu wax ne Moustapha dane kenn kenn du tudd ci ñoom loolu waxul dëgg kenn du ca dellu ci moom la moom laa waxal waaye mosuma wax ne kenn du ko tudd mubtadia yi gën xam ne ay mubtadia la kon aw sos la woo xam ne da ko dama ko na sa sëriñ bi dul luñ mën a dellu lu mel nii téere boo xam ne damay bunti asaka bunti woor bunti aj bunti loolu alfa waxal ini laa bëgg yoo xam sama iya, sëriñ bind na loolu yow boo ci mënta dellu bu nekkee mënu caa dellu man sëñ Tuubaa li mbir càq yi gis naa ci loo xam ne waroon def ab risaal tey jii di ko ne mën naa caa dellu waaye yow ginnaaw mana sëñ bi dara da ngaa déglu bir rek wala mën a mën a tos yow sa tànn mi rek di naan mbindi sëñ bi wóor na ma ne mënoo tu téere téere yàq yi mënoo ci yóbbu kuy mat war ngaa mën a wax ndax nit lu ko neex wax lu lii gën a xorom nag mooy wax ju wax ne ay mbir dafa amul lu ci nekk loo xam ne bu fekkoon te ne lislaam ñàkk na ko xeetu lislaam yëpp ñàkk wax ne ñàkk nañ tey bi mu tey mee lan la bind loo xam ne tey jii bu fi nekkutoon dana dana wàññi dara ci lislaam même mbiri bi daay yi wax am nañu ko waxoon am amoon mbiri bi daay yi nga xam ne moo ko jotale jullit ñi du ci wàllu pas-pas du moo ko jëkk wax daa fekk lu ay muxtadaa doon wax mu ñëw waxaat ko lenn lenn lu mu bind une tamit ba amuloon tey jii du wàññi dara rek ci lislaam biir biir yi nga xam ne sax mën naa am njariñ yooyu ci moom bu ko deful du wàññi dara loolu kon waxi dof la naa amul lenn loo xam ne amul lenn lu seen sëriñ bind loo xam ne bu ko bindoon xeet danañ ñàkk dara ci ci xam-xam amul euh, waaye nit koo xam ne xamut tey noppiwut jamono ne ci yu mel nii rek lay rek euh, kon wax gi euh, wax ji nag ñàkk teggin bi su mu gën a feeñee mooy fi wax ne seen boobu du dara boobu du allahu akbar eh, xam nga bari waxaab yi li ko yàq mooy day jéem a ne day defa défendre dafa lor boppam sëñ Tuubaa lu ko waaye bañ bañ bañ xam nga ne moom lu gën a néew ci mooy sant ku doore def nekk na ci jamono joo lislaam moom ñi fi nekk loolu liggéey ni ci lislaam loo xam ne gisu leen ci dab bi mooy waxee yow ñoom ñi bu ñu jotee ci lislaam moo ngi mel ni moom ñoo ko waral taalif na ci xeexal ñu lislaam lor nañ ko ci formé na ci nit lu lu kooku gone su bu taxawee kooku du dara mooy xamul ñii sax daanaka wax dëgg yàlla tontu leen sax daanaka ak ak jot la woon am na itam beneen gàtt xel bu mag mag bu mu tey rey nag mel ni <laughs> xam nga sëriñ li ko yàq mooy. tey ne ci lu ñàkk solo ba noppi def ne mu na képp koo xam ne nee nga saraab Fathul Bari par exemple saraabu ni mel mësta am laa sàkk ne mboolem kaw sorox yëpp yi teg ko kaw man li ma waxoon si point bii li ma waxoon dama bu ma nee Ibnu Hajar saraana Buxaari yi

ndax loolu day wane ne nawet yi moo féete kaw saxaaba yi wala moo féete kaw par exemple Ibn Hajar al Asqalani déedéet li ma bëggoon a foofu mooy diw taalif na sàngam nangam moo moo ko mos a taalif tekki wut ne da ko teg ci beneen borom xam xam mbaa nga teg ko ci saxaaba yi te yëngu woon foofu sax ci ne saxaaba yi ci boppam. asru tadwiin de liñ fi bari ginnaaw saxaaba yi lañ ko def te it amuñu jot ndax booba lislaam day taxaw xeex yeeg ñi leen war dafa bari loolu daj nañ si ngir wasaare diin loolu da day day coppati ay quelques mots dugal ko ci biir nit wër bëti say wax ko jëmale feneen léegi man maa ngi wax ay nit moom ci mbirum ay téere laa sàkkee ne teg nga ci mboolem wax yi xool yi tappale ak ginnaaw fekk par exemple bu ma nee diw def na loo xam kenn mus ko fee def maanaam kenn mus sara euh, kenn kenn mës mësul a mësul mësul a charx bu xaali comme ni ko Ibn Hajar charxoo tekki woon damaa wax ne moo gën sukki wala moo gën Ibn Abbas loolu laa ko doon wax ne ko ligaan na wax ne Sëñ Tuubaa taalib kenn mus ko loolu laa ko wax bu fekkee loolu nga bëgg a layee muy misaal mu leer waaye nit ku bëggul dëgg nga xam ne moom maana da ngay leeral mbiri sëriñam yoo xam ne bugutoon mu feeñ mu mere fële rek ak seeg xër-xër yi daanaka ak tàngooru métti yi nga xam ne xëy na yar yu métti yi nga ko xaw a sew moo ko moo ko jàpp buy wax du seetlu li muy wax mais boo ko dégloo xam ne kii ko yambaree yi ku sëriñ dëgg yi waaye nar nga xam ne itam nar na ko la boog waneen sos yi ngir teggeel ku bañ a mel ni moom ndax moom dafa suufe lool niveau bi yàlla boo ko toppee sax ba àggee nga suufe dafa wax ne al tudd Ibnu Taymiya waaye waa ngir bëgg a tappale daa bàyyi ñu tudd ñëpp ñu nekk loolu loolu dëgg la man ñeneen ñi moom taxul mu ñor ma sëriñ bu alpha bee ma ñor alpha bi nga xam ne yéem a wutal sama sëriñ ngir yëkkati biddaa bi mu nekk tax muy yéem a suufe Sëriñ te seen marja bi bi gën a mag ak luñ la mën a mooy Ibnu Taymiya mu bëgg a yëkkati Ibnu ci kaw Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa mu leer moom du moroom mu mën a comparé Ibnu Taymiya sax amul kon boo tuddee Ibnu Taymiya taalif na ci aqiida baaru sel bii si jëf bii mu ne marja te ne téere yi Sëñ Tuubaa yi nga xam ne teewlu bu tawxid lu ñuy maraaja nga xam ne wax ne moom tégiwut ci xam-xam tégiwut ci xel rek benn affaire lañ tudd waaye jiitu wuñu moom dara ñooñoom saa yu niwul ci ñoom booy bi waxaat ne bu fekkoon ne wóote lox suñu diggante ci al asmaa wa sifaat dong la yem kon débat bi du moom nag xam nga li tax mu jafee raddu mooy dul wax masalay xam-xam daanaka da ngay wax ba sonn waaye li ki lay déglu mën na ci mën a jëriñ ndax dootul borom xam-xam bu doon borom xam nga raddu ñii déglu dañ ci jëriñ waaye day wax waxi ñàkk fayda yoo xam ne euh, boo ko raddoo daal loolu jëlee daal euh, waaw al asmaa wa sifaat de bu ci yemoon doomu sax waaye bu dana agsi fii ndax ñi doon imte mais yéefar li ñu ci bëree bëri moo tax te lépp loo xam ne mën naa tax ni nekk yéefar ku ne bu doon moom doomu ci lañu wute dawaa bi agsi yow li nga wax ñaareel ba itam feneen fi ñu wuteeg fépp itam mooy fi ngeen wuteeg ahlu sunna rek wuti wuñu yéen fenn ku ci tasawuf ak ci alaqidatul ashari yi moom la sukki wute woon ak Ibnu Taymiya ñaari mbir moom la keneen wuteeg moom itam kon la lii ma wuteeg yéen mooy li borom xam yu mag yi wute waaye li nga wax sax ne bu ci yemoon débat bi agsi fii waxoolu am bu fi agsi woon tam dana yem fii ndax ñu leen takk fii sax al asmaa wa sifaat xel bu dama gën a garaawe waaye nit ku saa yoo waxee rek dana génne mu ne dafa wuteeg al umma al islami maanaam wala mbir ñi ñoo murit daa wuteeg ñoom euh, mooy li may wax ci ah man kat bu ma demee ci mu mu lii la day day tax day day taarif mouridisme ba ba ñu xam ne lii mooy mouridisme ta taarif ko ci masdar buñ mën a dellu nga xam ne moom ne wax dëgg la xam ne mën na ma ne lii moo di mouridisme bu boobaa ñu xool ba xam ne loolu jullit ñi dañ caa wute wala wutewuñ ci wala ña ca wute ñan lañ ca lay gën a neex xam. waaye boole bu taxaw rek daal ak mouridisme mooy nangam ak mouridisme mooy ñàkk julli ak mouridisme mooy nangam yàlla la te li moo am ci firnde mu doon ak murid ak mouridisme mooy gént di ko wax la nelaw di ba pare eh, ak mouridisme fan la wuutee eh, yi nga wax ne daa wuutee waaye wax ni tànn te li nga wax doo ci indi firnde loola wax dëgg yàlla mënul di ko tontu euh, am na benn sos bu sos tamit mu ne seen sëriñ bi di faatoon ne man laa nekkoon ak réer la ngeen ngeen bàyyi li ngeen ne ñun liñ nekk du ko duñ mooy baaxu abaaw li li yonent bi woote lu muy bañ daa koy ba ñun suñu sëriñ ñoo xam mooy alxuraan sunna ngeen ngeen war topp li li li ñu suñu sëriñ waxoon mooy ku jaamu yàlla te jaamoo ko jaamoo woo ko yàlla su képp koo xam ne jaamoo yàlla te da ngay jaamoo yàlla dafa wute sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, la ngay def doo am njëriñ loolu la suñu sëriñ jàngal ñun sëriñ sëriñ toppuñu ko ngir ne day day suñ tubaab dañ ko topp ngir ne jëwriñ suñ yonent bi la joo xam ne xamul ko ko man ci ci wàllu yonent bi mboolem ñi ko topp toppiwuñ ko yonent bi lañ ko topp ñi ko topp ñëpp rek lislaam tax ñu topp ko kon li wax ne bu di faatoon ne li ma nekkoon ak wér li ngeen bàyyi loolu amut euh, weneen sos bi nga xam ne weneen nar bi nga xam ne ko fi nar na ko mooy nee na ñoom jëleentiwuñu kenn loolu du dëgg seen sëriñ ca Arabie Saoudite ca buur ba dañuy jébbulu dañuy dem jaayante moom buur ba ñëw ñu Euh, acteurs yi nii itam kenn ëpp leen ko ku ci ñemee critiquer buur kaw daanaka mënoo ko ak caay-caay bu mën a def bëriwu ci kon da ngeen jégul fii ci Sénégal sax ñi fi nekk dañuy am amiru jamaa ak ay am na xeet kii bu ñam boo kon ci lii daal de def naa day joxe ndigal kon li ngay wax daara du ci dëgg euh, waneen sos bi nga xam mooy wax wax neen damay bàyyi xam ne xam ne aw naar la jërul jërul <laughs> eh, wax lépp li ci téere bi xes nii nee na du dëgg nee lépp fen la yooyu aw naar la xes nii moom amul lu ci wax loo xam ne moo ko sosal boppam xes nii moom defut lu nett li li ñuy nett li itam nit ko bàyyi fekkoon day wax nii te tiwu ko fenn waaye da koo indi firnde yow mii wax nag li nga wax yow amul benn firnde te ci xes nii moom loolu wax day am ko koy delloo yow yow mii yaa waxut dëgg wax ju ma waxee xes nii daa réer tamit ak ay waxoon lii di ci ay ay firnde du dëgg والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء waaye naar bi nga xam ne naar na ko itam nee na Moustapha wax ne ahlu sunna jékku ñu tamit marjaan te duñ ko tudd loolu nag du dëgg moom ahlu sunna ñu mu wax moom ndax ahlu sunna moom am na ci ñu koy ràdd am na ñu toxal tamit ay waxam ci ay yeneen fànn comme comme ni comme ni ñu toxalee euh, mbooleem waxi borom borom bi day waaye nag ci cadre bi Alpha doon waxee nga xam ne bayaanu tëgg si te tëgg te bayaanu tëgg si jëf mi la Alpha wax ne marjaa la ci ahlu sunna loolu naa ne ko moom du dëgg moom marjaa ci bal ahlu sunna euh, dañ koy rand ci boppam ba ah, mbir aqiida bu tey lu ci bari dañ wax duñ ko tudd moom loolu moom doo ko génne saxal mbir la ci aqiida ñi koy def mubtadaa yi ci Ibnu Taymiya nit nag mën na koo tudd mbaa mu am ay wax yu nekk li wala yooyu loolu moom ku muy suruxu xadis yi mbaa nga même sax bu dee ak xol xanbali wala yu bëri des na toxal ay waxam ak ñu bëree bëri même ñi ko ñi ñi koy raddu sax léeg-léeg ñu toxal ay waxam ci même téere bi bi ñu ko raddoo ci boppam waaw waaye loolu loo loo loolu nag bokkut ak jàpp jàppe um tey mi am marja ci àq yi ñaari mbir yooyu ñu benn nit nag bu fekkee si yàq bi muy waxee ak kaw yu tontu xamoo lu mu wax da nga ko waxal lu wóor ndax da nga da nga da nga da nga war a dese ngaa ngir day dugg ci waxtaan bi te fekk yow benn di lu bu baax waaye sax tey dugal na la ci nga comprendre bi lu mu déwéw noonu wax jom wax ne Moustapha xamu téere Ibn Taymiyya loolu moom daanaka ñëpp xam nañ ne du dëgg yaakaar naa ne mën naa koo jàngal téere Ibn Taymiyya comme naa li ma li ma ci liir yaakaar ma ne lii na genn wàll moom faa gën Ibn Taymiyya ñi ma gën a liir ay seen mbind ci la bokk jafe na nga wax ma téere bu ma xamul loolu yombul téere Ibn Taymiyya Euh, wax ju waxaat tamit ne kuy waxtaane aqiida zahabi foofu sax wax na ko wax ju ndax boobu mos a dana zahabi ci aqiida ashari yi la nekk ci ci xamul <laughs> laa wala quwwata illa billah mën na nar a bon man dama ne aqiida bi mu yor aqiida ahlu sunna la xam nga nit mën naa bokk ci ahlu sunna doo nekk ashari ashari boo gis nag ahlu ci ahlu sunna la bokk mais nit mën naa nekk ci ahlu sunna te te doo nekk asaar yi loolu lu mën a nekk waxaab yi ne dañuy dugg ci sunna ñoom waaye am am na ñu bari ci ahlu sunna duñu ay asaar waaye nag ci ahlu sunna lañ nekk la ñu nekk asaar yi nag nangu nañu loolu sunna li la leen di waxaat tamit mu ne ku waxtaanee ak xëy na bi ca olu nga war a def yooyu ci yenn critère la. ndax xam-xama ko rëdd ne ko xel bu ci oluwar la ko a xame wala am xel fa nangu wala diine ko digle wala borom xam yi ban borom xam wala borom xam yi jékki-jékki ne xel bu sax bi ci oluwar dong la ne xam nga waa ji li gën a soof moom mooy day wax gone yu soof ba noppi rek mel ni ko mu def xaawaay la aqir bi fu ne lañ ko mën a xamee olu mooy téere ba aqir bi mbind te boobu te ñu bari sax nañ boobu boobu gis nañ lu bari lu mu wax ci ak li mu wax ci seer du benn te seer lu mu bind kon loolu moo tax dañ ciy dégg ne daa taraaj wax ci aqida yooyee aqida yi mu wax ci ulu ak yi mu wax ci yi aqida bi biñ mujj gis la boo xam ak aqida ahlu sunna jamaa nar bi nga xam ne waa na ko itam mooy nee na Moustapha daa wax ne Ibnu Taymiya nee na arafi tawreet kenn sansi wu ko loolu aw nar la tax waxumu ko daa ko tudd na ko kon bu fekkoonte ne aw nar la sax daa wax ne Moustapha lam toxaare ci Ibnu ko xam nga ko ku xam moo yor xam-xam laa wan ndax Moustapha da ko doxal euh, ànd ak ne itam ne Ibnu Tulun waxul dëgg loolu itam sax moo njëkk di ak xamadi ak ñàkk xam ndax ku boo ñàkkee xam Ibnu Tulun tëgul wax ko dane gis na Ibnu Taymiya taalif ci ci fànn googu nga ci fànn googu la taalif maanaam saxal ne xaaral sa xaaral kenn remplacé wu ko taalif ba est-ce yow daal am nga téere boo xam Ibnu Taymiya téere ku tudd fa masal bu mel noonu il faut wax ñii ñu nga la wax loolu day fekk ne waxul la leen feneen ku la wax ne tey mu'allafatu na ci yow wala gis nga lépp ak ñëw yàlla ak mën a nar rek moo ko mën a yóbbu moom wax loolu daanaka gis na ci gis na mu tënk ci loolu loolu gis na gis na ko moom mooy tënk ko ci loolu dong la. na na na na wala ko fii mu àllaf wala fii kon dafa wax ne moom taalif na ci loolu taalif na ci loolu kon ki ne da ciy taalif ki ki gis na gis na gis na taalif Ibnu Taymiyya ci loolu nga ne waxul dëgg te yow lenn loo teg ci biti ñi ñi ci moom moo njëkk ak yabaate ndax boo demee ba di bu fekkoon ne laa tuddee téere sàngam ne téere sàngam laa tuddee waaye dama fekk Ibn Taymiyya waaye gis naa Ibn Taymiyya taarif ci nangam te tey ci lii la doon wax nga jékki-jékki ne waxoo waxu dëgg te moom ni ko waxee dane wala ko fii ci musannaf maanaam nga xam ne tari kon jékki-jékki zahir bi li muy nuur moom mooy am na atelier spécial mu def ci loolu yow ñàkk gi ko ñàkk a gis ku la wax ne Ibnu Taymiya li biir lépp da nga ko gis waaye nit koo xam ne boole na réew xamul yoonu xam-xam euh, moom daal lay wax ci làng nga rek koo xam ne doo dëgg te moom daal doo dëgg moom waaye nag nar wéyum nar mooy xeeb ulama Mauritanie te ñii duñ moroom bi sëriñam Mauritanie baadiin ku fa dem bu yàgg ba léegi dañu ay bon xam yu fees dañ ko xam mais lu ci bari seen dund leen ya fa nekk ëwul fenn képp ku man euh, waaye Fadil war naa mën a wax ko moom bu ci waxee rek juum nañ ko ko jégal waaye nar nar mu ne muy junj ne sëriñam dafa def lettre de soumission loolu du dëgg sëñ mësulul lettre de soumission totale comme ni ngeen koy waxee loolu waneen nar la euh, benn lettre boo xam ne mas na koo bind lettre digg diggamu tubaab yi lu soppi ginnaaw géej gi wala biir géej gi wala avant géej gi amul ay nar yu di nar rek di ko wasaare di ci nax ñi Euh, beneen bi itam mu ne sëriñ na ay taalibe ñu dem ci guerre loolu du dëgg ay taalibe dem nañ ci guerre waaye bi sëñ bi leen yebal nag moom aw la man daal man daawaa day tànk yi daa tàng waaye doo wax dëgg daal rek xool ponkal mu toll wax a wax ma xaaw doo te li mu wax dara du ci dëgg euh, li gën a xorom ci laaj ko waa ji nag mooy ñi liir texte bi ñu askan wi ma xale te dañ ñëw léegi ci kanam. da euh, euh, euh, daa di ba yàgg mooy débat yooyu yu mu demee mooy mooy leen doon duma ñu doon niqaasal laa hawla wala quwwata illa billah pour loolu nag moom gëstu dañ leen delloo ci dóoralul kaayu ne ndax bari na ci loo xam ne mu xool nu débat yi demee woon pour ngeen xam mara bi kii tolluwaay nga xam ni naa ko gaa yi ko E, beneen lënt e, bi nga xam ne indi na ko mu ne zamalkaan yi seeral yi mu na ci dara dara jot lijtihaad nag may leeral ne Ibnu Taymiya moom ci njëlbéen gi borom xam yu bari dañ koo dañ koo seere loon ay mbir ndax booba daa nekk waaye bi mu demee ba euh, dem ba mu yàgg mu soppiku nag ci la koy borom xam yu bëree bëri tàmbalee wax yi koy wax damay ragal nag ñeen ñi dañuy tuxal yenn shahada yi doon am avant avant ñu ñuy wax seen wax yu mujj yi ñu ñu jël yooyu ñëw naa diw nee na ko lii loolu itam day am ci mbir yi euh, boo demee ci borom al-maqaalaatu sunniya nee na lim nay borom xam-xam yoo xam ne ci njëlbeen ni njëkkoon nañoo tagg Euh, ibnu taymiya waaye ginnaaw bi dañ caa deltu ginnaaw euh, nee na wa kaana min jumlatil musnina alayhi taajul fazaari almaaruf bil farkaaj wa nurul burhaan wa jalaalul qasmi wal kamaalul zamalkaani muy zamalkaani moom kooku muy wax muy wax ومحمد بن الحريري الأنصاري والعلاء وغيرهم لكن ثناء لكن ثناء هؤلاء غر ابن تيمية غر ابن تيمية ولم يتنبه إلى الباعث على ثنائهم لأن تبوني تكون الموقوع تاني نحن يقول تدبين وكخل فبدأ يذيع بلا عم متعب النجدي وصار أي بدار دي سوى أي بدار بين حين وآخر وأهل العلم يتسامحون معه في الأوائل يعني جاي بين قرون خبرين قرون جيل لليني القبال باعتبار أن تلك الكلمات ربما تكون فلتات فلتات لا ينطوي عليها من نعم جاك وفي ركريكي وهذا خيما بوردو لكن خاب ظنهم وعلموا أنه فاسق فاتن بالمعنى لكن خاب ظنهم وعلموا أنه فاتن بالمعنى الصحيح فتخلوا عنه و سين جو سين لين جو تو سمون دفتر سين يانغ دفتر فتخلوا عنه واحدا إثر واحدا يعني نجو لكو باي بين فر بين كون wax ni jiw taggoon na ko rek classe Fallou Ndiaye boo leen dee déglu day ko xam ne taggoo lañ caa wëy ma ñëw fii leneen ne waa ji ñëw na si muy te mooy yëpp solo ci li mu wax daanaka sax moo loolu lu su mën a tuddee ni xaas sax yeneen suur rek ay naan yu mu موي ابن حجر العسقلاني تدير ابن تيمية ما يفات لنا دفع ميعري ابن حجر دفع ابن حجر الهيتمي أم ابن حجر العسقلاني ما أن ابن حجر مولا نوح مولا الهيتمي مولا نوح مولا خاص ابن تيمية ما نا لولا واجي موتي دي تكسمو تابع نتوها نكو يفعنا جينات دوانتي لولي سيدنا كيلي نوح لولي صوت مولا دي وقت مين دي فينا دا بوكو دي سخي كات لو أخم سوكي موكوخ تسوكي مورو ابن تيمية سخي taqi diin sukki ne Ibnu Taymiyya nii la mel te bi mu am na ci loolu sax bi mu koy wax bi mu naan Ibnu koy tëj mu koy bi mu koy wax Ibnu na ba ñu rob Ibnu Taymiyya su sukki di seere lu mel ne sukki seere na ne maanaam day jaxase mbir yi Ibnu Taymiyya maanaam comprendre ma sa lay am xelam la ciy demee ci ci ñi ci ñi tax ñi ñu xam ne wax Ibnu Taymiyya amul solo sukki moom ci bokk te xam na ko di ko waxane Euh, ñëpp dëppoo nañ ci nu moo seer li ci ñu di loolu. ku noonu ak ña ni moom fekk nekkandoo woon fekk Ibnu Taymiya ba Ibnu Taymiya faatu ñu continuer di di wax loolu. nga defee ne mën ngaa dindi ay waxam ci wax Ibnu Hajar al-Asqalaani mi nga xam ne moom fekkante wu Ibnu Taymiya daal yi mën naa fekk. nga defee ne waxi Ibnu Hajar al Asqalani mën naa dindi wax loolu sax moo njëkk moo tax euh, wax gi muy wax naa Ibnu Hajar wax na ne li xes ni li xes ni wax ne du dëgg wala li gaa yi wax du dëgg loolu gàtt xel la ndax li gaa yi wax du dëgg moom ki koy def moom mooy fekk la waa wax nga dindi te indee te indee wax ay wax gis bu dindee noonu weddi yow nga weddi weddi yi fi diloolu noonu di wëti yooyu di ko koy waaye loolu moom waaye nit ku maanu nga xam ñëpp dëppoo nañ ci maanoom ci ak concret dëppoo ci xam-xam ak ñu mel ni moom taxaw ne waa ji nii la mel te kooku nekkoon ak moom te la wax kenn mënu ko dindi kenn ku ba fii ma waxee itam kenn ku ku indi lu ko dindi amagul nga daan di diw dindi la ci lan la ko dindi <laughs> maa hakaza tuuradul ibilu يا سعد أه، أه، واي ما حد على عقلاني خلا أنه يزوني وقف دون دواء أمل أنه يزوني ليه ما يبقى لنا نمك إنه حد أنه يزوني من رمك خلنا بوها نسمي نمهم نما نما قل قل لك إنه حد أنه يزوني ألهي تميل ألهمنا كوكي نمهم على عقلاني ومؤمني دخلين على أه، عقلاني نمو تلو مكور إنه حد على عقلاني نمو تلو مكور بكل مسافتان واي واحد إذا واحد Euh, wax gi nga wax ne tàggal Ibnu Taymiyya sax daa mën a xool moom ah, ci ahlu sunna la bokk moom nañ xool lan moo tax mu fekkee tàgg na xam naa alxaafidu saxaawi daal daa mel benn taqrir moom ci àddur aljawaahir wa dooraat boo xam gis naa ko ci yow laa ko njëkk gisee nag ko xam mais bu lan moo tax mu war na koo mën a tàgg parce que ibnu xajar la muy la mu nettali ba muy tarjumaal ibnu mooy ibnu taymiya daa jóge ci lii ngeen nekk tuub dugg ci almadhabu ashari kon day jàpp ne mbokkam la rek ci ahlu sunna sa bokk moom fépp wutoon yi moom ñoo ko fekkoon moom nettali nañ nam xajar nag moom daa daa daa rafet jot ci ibnu taymiya rek moom jàpp ne tuub na kay <laughs> ba nekk ashari lu tax du ko mën a ragg mën na ko ragg waye dama ci adoraul kamila ibn hajar mom mu ngay wax alaf qalani قال انا اشعري ثم وجد ثم وجد خطه بما نصه الذي اعتقد ان القران معنى قائم بذات الله وهو صفر من صفات ذاته القديمه لولا انا انا اشعري ثم وجد خطه بما نصه الذي أعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته وهو صفة من صفات ذاته القديمة نانا لما لما موي نانا neena نانا من neena man ashari la ginaaw gi ñu fekk ci mbindam loo man li ma fas mooy alquran maanaa la mu nekk ci jëmmi sunu borom subhanahu wa taala te it aw melokaan la wu bokk ci melokaanam melokaan li mooy yu jiitu yi te Ibnu Taymiya xam nga loolu du an pas-pasam pas-pasam bi faatu ñoom xam moom mooy alquran moom du xaddi du xaddi xaalis yi ni mu ko waxee mooy li ko asaaxi ngay waxee wa huwa gayru maxluqin tey du la bind walaysa bi xarfin wala sawtin doo araf du kàddu لويتم ويأفعيه وأن قوله الرحمن على العرش استوى ليس على ظاهره ولا أعلم كنه المرادي به لن تقول نعم الرحمن على العرش استوى لمن الكو دوره تي لجال جبل رجل خمك بل لا يعلمه إلا الله نعم يعلمه خم والقول في النزول كالقول في الاستواء نعم نعم, نعم،, نعم. nii ma wax ci istiwaat ne xam lu ci yàlla nam bu dee ci nuzul tamit muy wàcc gi noonu laa ci wax loolu ci wax moom itam nga xam ne rabbana yanzilu yooyu moom xamul la ca sun borom subhanahu wa taala na ahmad ibnu taymiya moom wax lii tamit lu tax nekk rabi'a moom matu naa nett li kon ngóor si war ngaa nettali waaye lii wax dëgg yàlla nag man lii Ibnu Hajar wax nga xam bi muy indi bi mu tarjumaa lim tamit moom la lii te nettaliwul lu wuuteeg loolu fenn ci téere bi bu ma gëmoon ni Ibnu Taymiya loolu la wax man mii du ma am moom problème sama fi a nekk mooy fii al asmaa wa sifaat ak Ibnu Taymiya waaye du fa طوف مقرمان والليل والنمر هادشي المسائل ييغا خامل موي مسائل العقيده فوف رك لين ام اي جاف جاف boo demee ci adorul kaamil nag Ibnu Hajar mu ngi nettali yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi koy tuumaal Ibnu Taymiya même sax kaana moomu ngeen di wax na daal yi suñ tubaab ci kaw saxaaba yi Ibnu Taymiya mii ngeen di yëkkati ñu bari tuumaal nañ ko kontoo saxaaba yi wala ma ci Ibnu Xajar al Asqalaani xamul lu tax nit tubaab gannaaw lu gudd ci wax Ibnu Xajar am na texte bu mu indi boo xam ne ñu ngi koy nekk li wax yu Ibnu Xajar doon wax yu rëful ci saxaaba yi Euh, mi ngi naan wa qaala fi xaqi aliyin axtaa fi sabata achara cheyan ña nga ibnu xajar ko wax na fa texte bi wax ne ibnu xajar wax nañ ne ibnu taymiya nee na ali juum na ci ci fukk ak juróom-ñaari mbir sayidna ali radi karamallahu wajha يوغانينا رفاوتي القرآن wax na itam ne ku defoon taasub la ci ñi wooye alxan ay xanaabila xam naa mooy murtaddul xanaabila doon koo xam ne daa sikkal asaacir yi ba nga xam ne àgg na ci saaga xasaar yi ba ay nit jotoon a jóg di ko waaj a rey Eh, kon moom loolu lañ ci mën a dégg woon kon ko bëgg ko ay bu mbaa waxee ne ca dóorar dóorar ne

ndax ab sëriñ bi ci lislaam fii na ko cheikhun fi lislaam la foofu fii na ko cheikhul islam fii na ko cheikhun fi lislaam maanaam mën nañ mën ko tuddee sax mag mën nañ ci mën a jublu sax ab sëriñ mag mag la ci lislaam loolu moom man sax wéetuñu ko ma dëkk yow mu tey xam naa ne mag la ci lislaam moom man it man it ci ab sëriñ la ci lislaam mën naa nekk sëriñ ndax nekkum sëriñ du nekk du tee nekkum sëriñ xëy na Ibnu Hajar gis na ne ay wax nañ ko yoo xam ne moom jàpp na ne gars yi dañ ko dañ ko taasub la moom moo di ko défendre te it jàpp nañ ne mën naa am tuub na ndax islam di ko a defaan rek bu ci Fatul Baari ngeen di ko a wéral sax loolu xam ne ay béréb euh, kon euh, pas xam moom la yor moom Ibnu Hajar moom ña ko ay mubtadi'a la leen jàppe xadiisu nuzuul gi mën naa am daa jàpp ne dañuy tuub ndax boo demee Fathul Baari moom Ibnu Hajar moom mu wax nee na ñi wax lu mel ni li Ibnu Taymiya wax lu mel ni li Ibnu wax ñi wax loolu boo demee Fathul Baari dana fekk ñii ngay wax ne ñooy mushabbiha yi kon moom pas-pasu Ibnu Taymiya ci boppam sax yow bi nga koy jéem a défendre ak yow boobu Ibnu Hajar moom pas-pasu mushabbiha yi la la ko jàpp amul fenn nag foo xam ne Ibnu Hajar dëppoo na fa Ibnu Taymiya ci. yu bari ba ci yu ñu wax aqida wax na ñuy wax ne ñoo dëkkoon moom aqida ibnu taymiya moom aqida bidaay ci la ko ibnu taymiya ibnu hajar boole sifaat yeeg sifari hamlu xamlu sifaat hamlu ayati حمل حمل آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها لون إنه حاجة تشبيه لبجد wane na ne itam askanu Fane mosuñoo ne ci loolu nga xam ne na jàpp ne gaa yooyu gaa yi biddaa lañ boole wedd na askanu Fane eh, nekkuñu ci loolu pas-pas mu bi mu askan eh, pas-pas bi mu ci la askanu Fane ne ci baabu la asmaa wa sifaat mooy mooy mooy mooy pas-pas mooy pas-pasu Ash'ari eh, kon Ibnu Hajar raddu nañu tamit ci wax na ni li mu xajar tuub na ba ba ne ashari ibnu taymi kooku nag bu ko taggee du betti kenn moom kay ki doon jaaxle kay mooy koo xam ne jàpp na jàpp na ibnu taymi ci lii ngeen nee la ne moo tax euh, suñ sëriñ sàngam tuxal nañ teg sàngam loolu du aw lay tax ci lan la ko tuxale mais ibnu karaam sax ay gars am na ngeen di teg ca lay ci lan la doon wax ba tuxal ko même sax masala yi mubtada yi dañuy bu fekkee mubtada war na war na ci sam loolu ku ku ku mu ku mu tafasir xam waaye est loolu day wane ne da laa bëgg wax ni te nii parce que sam wala du mubtada loolu ma leen euh, ay cheikhul islam ak yooyu nag moom daanaka ko yàkkantal képp la moo ko nga diin wala nga ne diin wala burxaanu diin wala jalaalu diin loolu ay dàkkantal yu borom xam yor la yoo xam ne dañ leen koy wax ñi leen sopp ak ñi leen sopp ñépp dañuy ànd di ko wax loolu du dara gis ni wax ko lim tey mee sax ca ko def fenn loolu ay caaxaan rek la kon li ma tax xam mooy Ibnu Taymiya Ibnu Hajar moom du moroom Ibnu Taymiya lim liggéey ci xadiis ci ilmul jarh wa taadil ci leneen ci leneen Ibnu Taymiya mënoo waree asaka ji lu mu ko ca def fànn boo xam ne Ibnu Taymiya liggéey def lu amal njëriñ jullit ñi loo xam ne Ibnu Hajar di ko ci lu ko raw mënoo koo génn xanaa défendre bi daal Ibnu Taymiya Ibnu Hajar nag du du du te bari na ci mu jàll daal yu ni di yéem du daara ndax weesuul rek mottali buy buy défendre bi daal yooyu tey moom daje woon lakk sax ci gën. amul njëriñ al umma islamiyya waaye li amal njëriñ al umma islamiyya ñi ko def mooy sut kii ñoom doom ñoom ngay fekk ñu ay àq ay lu julli ñu mën a lu ahlu a ñu ci usul wala ci yeneen fànn yi loo xam di wax naa borom xam xam lu seen xam-xam ba tax di wax loolu du ak xam-xam bidaa ba ba ba bëgg caa nag naa moo raw nanga mais fànnu fànnu asar moom ibnu xajar yéen euh, waxuma la sax dong ibnu taymiya waaye ibnu taymiya mër mër dong ibnu xajar fànnu asar moom te it képp ku far wax xam nga bi nga si wax na ibnu xajar ci kaw la ko teg aw naar bu ko féete kaw mënut a génne fenn foo xam ne xajar wax na ko lu nuru loolu ban sax da koy rand mais bu asar yu bari régistre da koy rand kon ilmu tey mii mënees koo défendre ay borom xam yu maandu ñoo fekkee ñoo xam ne ñi leen tawsiqal ñëpp nangu nañ ne moom seenu maandu seenu xam-xam ñoo taxaw mu fekk leen yaafee yi mi nga xam ne mook ilmu tey mii ñoo fekkandoon jamono mu ne daa tuub dañ ko dañ koo di borom xam yu wër ko mu tuub maanaam sama sëriñ moom tool bi ko réer tëkk koo leen gën a amul waaye yéen seen sëriñ moom xëy na waaw sax wër yu bëri borom xam ko tuub xam naa xaw a daanaka moom mooy yéen Euh, kon loolu mooy li xew sukki ñu ko fekke woon nee na Ibnu Taymiyya moom dafa firi ponk islam tey danoon nëbboo topp alxuraan sunna di feeñal ne moom day woote jëm ci dëgg waaye daa génn ak topp jëm ci biddaa fi mboolum ngir ñu aw mu wax la neen te loolu sax bu Moustapha Sy la ko waaye da indi firnde indi laa la fi borom xam waxee ne juróom benn fukki masala wuute na ak jullit ñi te tudd naa ko lan moo wax loo xam ne boo xoolee ba ci biir la muy rek mooy yàlla yor na ay cër yoo xam ne day toggaloo bon xam nga wax lii bu fekk Ibnu Taymiyya du soxla si sox yàlla soxlawoo ab du jomb wax ni jëm yàlla ji du sosu mën na am bu bees wax alxuraan

وسبعين التي افترقت عليها الأمة آه، إيه. ولم يجمع أحد هذين القولين ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل يعني يعني رغم مسيسكو دجالي ci menn ngir ci ngir yi wala wenn yoon ci yoon yi lu mel noonu mësta dugg ci juróom-ñaar kuréel ñett yi nga xam ne moom la xeet fu yonent bi di teqli ko war mën a alam yadxul fi firqatin من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقت عليها الأمة ولا وقف ولا وقفت به مع أمة ولا ولا ولا وقفت به مع أمة من الأمم ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة وكل ذلك وإن كان كفرا شنيعا مما تقل جملته بالنسبة لما أحدث في الفروع عند الليل دون تنك كيفر لك ما اللي نوحا كيف سوني يفر لك فولي لك وكيمو كيمتين ينفك ينفك دوك lii mu koy wee fas moom tuddee na ko kéefar moom maanaam jëmee ko fas moom ak kéefar yi nee na loolu nag doon buñ ko xoolee li mu nekk nekk ak kéefar gu bon boo ko xoolee sax ci li nga xam ne sos yi pas-pas yi lii lu garaaw la ak kéefar yi xeet pas-pas yi muy saxal waaye sax boo ko xoolee ci yeneen yi nga xam ne du mbirum pas-pas te tam sosaat ci yeneen yooyaa gën a bari lii ñuy wax lii jamono yi tamit dina fekk ñu nekk ak moom xam ko ñoo ko ñoo ko gën xam faa gën koo xam sax Ibnu Hajar ñoo ko seet di ñu ñu maanu kon euh, ñii nangam gisuma ko ci téere yi tamit loolu mënu ko din même téere yi tamit yi ngeen jàng a dindi loolu ndax mën naa am ginnaaw fes ni leen doon làq yéen yéen yi mën naa am da koo làq boobu wala ñeen yi ay réer yi mën nañu ko làq yéen yi yow boo ko ci fekkut tekki bi boo fekkee lu ko tey loolaat lii de njëkk a wax lan la ci njëkk a bind wala est-ce que di tuwaat ginnaaw ginnaaw bi yooyu yëpp daa mën a am kon la tax la tukki ñoom gis ba tax ñuy wax lee Ibrahima mën na ko bañ a gis yenn boo xam yi ko yi koy tag yëpp mën nañu ko bañ a gis gisuma ko ci mañ ma fatawa wala gisuma ko ci aljawaabu saxeex wala gisuma ko ci téere sàng gis ci delloo loo xam ne ay euh, ay siqaat urur ñoo ko seere yuñ xam ci maanu ak te du kenn du ñaar surtout ay borom xam yu dajaloo xaaral noonu diw ko réer la ba àgg ci di ko tudd loolu di ko delloo ci waxi Ibnu Hajar waaye Ibnu Kanaan bàyyi na caaxaan